Polen Quand c'est bon, jaamu yow ak liñ dund lépp ci àdduna nga attan ma def yow li nga ma def pare dem foog ni dootu ma la teg bët ci àdduna tu mens ok Je vais vous dire, attends, attends, doucement, attends. Assieds-toi, Anta, assieds-toi, s'il te plaît. Il y a des gens ici, Anta. Assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi. Oh, merci. Attends, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Je t'écoute. Pardonne-moi. Eh, yow laay déglu dama bëgg nga wax. Pardonne-moi, je n'ai rien à dire. Pardonne-moi. xaalisu doomu jàmbur yi nga lekk toog fii yow anam.

ci Sénégal foo dugg yow man lañu topp di gis yow jaam nga yow yaa tax sama famille ñépp bàyyi ma yow yaa ma dugal kaso yow doo gor mais man dama soxla xaalis tey dama soxla xaalis léegi yow laay déglu comme ça je vais venir là-bas. Je t'appelle. D'accord. Le soir, je vais t'appeler. Soo génnee fii. D'accord. Sa xam nga ni maa ngi la bandi. Xam nga ku ma xamul ba yow xam nga ma. Du ma tëgg si la te dégguma la. Je vais t'appeler Antes. Premier juré. depuis keroog sama yoon nekkatul ci yow tu fais tout Louis c'est sûr ce que tu ci Maguette pour loolu noonu rassure-toi sama yoon nekkatul c'est un bàyyi na ma ne léegi ñun ñëpp ñoo ay kàkkatar lañ ñun pas faire comme l'autre jour. Hein? Hein? T'inquiète, hein? c'est sûr C'est sûr. Et, tu sais, ici, c'est pas sûr, hein? c'est pas sûr. Hein? Je sais qu'on doit parler, on doit en discuter hein? Hein? sur beaucoup de choses. Hein? Hum? Si on le regarde partout et c'est pas sûr, hein? allez, lève-toi, lève-toi, prends du <laughs> Allez, vas-y, mignonne. sañoon ñu bàyyi lii nii yëpp pourquoi ça. maa ngi si imaginer su ma ko defee kii après mën naa koo indi problème fameem jabaram fii sëy mën na ci yàqu ta jaru ko daal. loolu jaru ko quoi je me mêle on s'en de tout ça ma belle. lui est-ce qu'il pense positivement est-ce qu'il pense comme toi c'est ça qu'il a préféré. trahir sa femme, trahir ses enfants, trahir sa société. C'est des vermines, des parasites. Et vermines et parasites, on les élimine. Et tu veux beaucoup d'argent ou pas Tu veux Donc passe à l'action, j'ai dit. bien sûr appelle-le et fixe ton rendez-vous avec lui. maa si ba du ma am problème bëgg naa xaas waaye bëgguma am ay problème après de. tu auras beaucoup d'argent et tu n'auras pas de problème ça c'est parole de Mangassi je te couvre toi aussi. pardon. et avec tout ce que tu fais pour moi quand on est ensemble toi aussi t'inquiète c'est un imbécile il faut l'appeler vas-y ma chérie. prends, prends, allez, C'est sûr. j'ai dit. Fixe ton rendez-vous. Allô Alpha naka mu yaa ngi ci jàmm ah man de dama laa woowoon pour jéggalu xam nga rek li ma la jotoon wax mooy loolu dama toog sama xel mi yëpp nekk ca instant bi envie gis sa nekk ak yow rek laa am hmm. billaay ay yow kontaan naa de billaay dama toog mënatuma ko muñ sax moo tax ma ne xaar ma woo la léegi xaar ma envoyé la bi fan nga may fekk ma envoyé la ko SMS ok ma la koy envoyé léegi sax Ok, ciao, bisous. Son bi maa ci comme woyof di fii géew bukki ya yow barki yàlla doo ma rey eh, ma mais la vie eh, est eh, faite comme ça mm. tu as ta vision, ton objectif, tu l'exploites. L'autre a sa vision, son objectif, il l'exploite. C'est comme ça que ça se passe. loolu sax laay def ndax moom comme dafa ñàkk fayda topp moromu doomam bi dinaa ko wan nan laay ma chérie préparé puisque message naa ko. vas-y vas-y. <laughs> Et Alpha, ta femme verra bien Alpha. Ça, c'est sûr. <laughs> Après, elle ne va plus, plus, plus s'occuper de moi. <laughs> Euh, moi, je suis un très grand bouquet. Yeah Mia, dépêche-toi là. Mmh. <laughs> Bébé Bébé Chérie, tu viens man saa yu ma xëy à chaque fois bu may dem xëy rek saa yu ma lay gisaat damay gën a kontaan en bébé. waaw xeetu robe yi nag. <laughs> Ah, robe bi moom rafet na trop macha allah. merci. te en plus euh, bébé euh, xam nga lu ma gën a neex ci yow. non say parents dañ ma defal choix bi nga xamante ne ah. mosuma ko am sama àddina ñu may ma la depuis bi mu la takkee ba léegi bébé sama wërsëg daa ubbeeku su ma xëyee ba wàcc xoola je descends avec des millions à cause de toi ak ñaan ñu may ñaan surtout bay julli man yaay sama xol bébé sama sama xol laa la def sama xol sama biiru def ci boppam kon bëgguma sax ngay dem yow moom yow moom yow yal na la fi yàlla bàyyi xolal waaw ba loolu jarul samay wax dégg ok bisou ma xam nga de plus encore euh, bébé sama xol dafay sedd guy à cause de toi man mënuma bëgg kenn ku dul yow je sama xol kenn munu faa nekk ku dul yow yow rek laa bëgg d'accord léegi bàyyi ma xëy balaa may gën a tardé dégg waaw xam naa dinaa la téléphone su ma yeggee mooy woo moom euh, un deux rek nga ne ma téléphone. parce que moom yow laa miin yow laa xam loolu moom dëgg la. Ah. mais je revenir tout de suite Allez bébé, allez bisous. bu euh, fekkee bébé. te plus xam lu ma gën a jaaxal. yow xeetu parfum yi nga yoroon. parfum yi may xeeñ chaque jour man loo ma ma jaaxal foo ko jëlee. mais su sama xeetu parfum man de jaaxal nga ma bébé. mais yow xet bu neex si ma la fekk baax. waaw loolu moom dëgg la yow moom à chaque instant su may xëy lu may xeeñ chaque jour que je vais day bokkul. ma sa bokk nag. yow su muy su muy tëddee lu may xeeñ ak su ma yeewoo ak su may dem ci toile bi su may ñëw ah lu may xeeñ daa bokkul ma lu ma ma jaaxal ci yow bébé. des na yeneen. des na yeneen. bu baax demal ba ñëw. yow xool ma je te un million pour nga jënd benn parfum. benn parfum rek maa la ko <laughs> dégg allez bisous allez bébé attends la dégg nga du ma ko dee bébé si yaa may woo non loolu mënu koo gëm maa si yaa ñàkk jom maa si yaay imbécile maa nga si yow doo nitu dara yow sa ngor may la nga woo ma ak li ma def lépp yow amoo loo wax yow bul wax man maa war a wax ak li ma def yépp maa nga si de yow de xanaa ma bañ la teg bët mais yow bu man a gisee bul xam sax lu ma lay def sama jëkkër tudd nga ku baax jëkkëru njëkkante da nga tudd nii ne laa lay tegal jëkkër ju ma bëgg yërëm ma yiir ma yow noppil sama jëkkër laa la wax ndeyam laa la wax rek moo gën sa ndey bàyyi a gën sa baay waxuma laa nag xaj ba ca kër ga rek moo la gën yow kooku mënoo koo yàq kooku mënoo wax loo xamante ni sama xel day tey ci moom yow maa ngi si man maa dul déglu sax yow ngay wax mais jàppal ni fu ma santeeg yow dama lay lekk na leer kii moo ñàkk jom dëgg dëgg dëgg <laughs> man nag tey laa waaru <laughs> sax ci loolu nag. bàyyi nga am jàmm bu baax. waaw ah, sant yàlla. ça euh, mbaa fi wóor na. wóor na benn problème. ok yaa ko problème yaa ko yaa ko choisi. effectivement sinon nag. ça va à part ça naka tey. naka mbaa ñëpp a ngi jàmm. waaw gis nga téléphone bi bu muy sonné teg ci suuf bi. Hmm. non damaa tiit. je te jure bu ma xoro doo ma mësa woo. d'accord. sinon nag. ça va. à part ça j'espère que jàmm la. jàmm la kay. Chérif. fan lañ koy ba nga xam. mais yow est-ce que bëgg nga bien sûr man dama laa bëgg ba dof bébé. mama dama ma jaaxal. yow man sa moromu doom la. je te te te te te te. bul dugg ci sujet yooyu bébé yow tamit. yow souvent da ngay dégg ñu naa l'amour n'a pas te xam nga ni man dama laa bëgg man sama xol laa la def sama bopp billaahi man lépp loo bëgg ba jant soo rek amul benn problème dinaa ko gérer pour sama diggante ak yow moom man nanga nga heureuse rek bu am benn souci d'accord man loolu laa bëgg tamit bébé dégg léegi état femme dans tout ça. bébé jabar bi nga xamante ne day jël parfum Arona parfum néew man comment je me demande la question comment nga jël parfum néew di ko jëma cuuraay si biir kër gi ah comme si ku may ku may bëgg a rey ah man je je comprends pas franchement parler je comprends pas c'est quel genre de femme franchement parler je regrette sama parent doon nañu ma. kooku bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi di ma wax saa wax ci noonu franchement parler. tournons la page kooku moom man je la man ressentiruma ko franchement parler. maa xam ne am ku mel ni yow di ko caaxaan. moo tax ma yee ndax nga moom ma. moo tax na dinaa ah, maa ngi nii dénk naa la dénk naa la ah bébé oh ak lii. ma xalaat jabar bi nga xamante ne loxo yi doo comprendre ah, loxo yaa ngi ñagas comme waa Sintu. ñu koy dundoo ku la gis xam nit ko xees nga te xoolal sa kanam li mu nag oh, koy yëg. oh bébé maa koy yëg bu baax li nga def ni kay ak gëj sensation yi. nga sama yaram moom dama am tàngooru yaram ah man nekkee ab sorcière ab sorcière laa yoroon sama kër waxalla dundu ma woon lii ak maa ko gëj a am bébé yi raay sama bopp nii lii ko dama la wax naa sama kër dana dund dinaa la tëb tëb nga kontaan jabar bi nga xamante ni ah chaque jour c'est des problèmes boo xëy bu tëbee si kaw yu nga tëdd si suuf li nga def neex na dëgg bi lancement bi la rek. waaw kañ saa yoo bëggee. ah waaw programme ko xam naa prochainement moo dañu gisee fii de ah. fii. waaw ah. fii xale yaa ko dese. waaw ah, weesu nañu fii léegi moom franchement léegi moom dañu koy programmer rek saa yu saa ñu bëggee gisee rek ñu gisee hôtel mën naa ne. déggoo ma xanaa yow loo bëgg rek bëgg naa. ah kon de jeex na jàmm jeex na dégg nga ok maa yow moom ba jëj yu feex bëgg nga loolu bébé. yaa ngi. yaa ma bii paa maa lay bijoux. yow da koy fay. comme maa gëj a am lii am kaa gëj a